mbokku Sénégal seen mbokkum taalibe Imam Dramé moo ñëwaat ak yéen fas yéene waxtaan ak yéen ci seen émission bi ngeen xam muy al umma la communauté al umma nag xam ngeen ni baat la boo xam ni buñ ci taxawee rek ah di ngay gis ni baat bu am solo la mooy communauté bi ci boppam nation bi ndax alquran ci boppam moom moo tuddee xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tuddee leen al umma moo tax ñu sos ñun sunu émission tuddee ko loolu tey nag waxtaan wi fàttalente rek lay doon waxtaanu laayante biir waxtaanu laayante biir en tant que ah, seen mbokk waaye en tant que koo xam ni ñoo bokk réew mi di fi dund parce que alquran moo ñu wax ni fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin yàlla nee na na ngeen di fàttalante ndax fàttali dinay jariñ fàttalante bi nag weesuwul rek mbiri réew mi ak aveniru réew mi ci boppam parce que mbokk yi moment yi nga xam ni wax dafa bari coow bari ba dëgg di bëgg a réer parce que nee bu bu wax baree rek dëgg réer day baax ñi nga xam ni xëy na yàlla dimbali na leen ñu am vision di gis lu ñëwagul ñu leen di tuddee ay leader moment yi day baax ñu dégg seen kàddu te mbokk yi bu ñuy wax leader ci l'islam leader bi ci gën a màgg ci lislaam mooy ab ab imaam parce que yonent bi sallallahu alayhi wa bi tax ñu bind jaami imaam la woon saxaaba yi ko doon noon ay imaam lañu woon suñ mag ñi nga fi dégg ñëpp ay imaam lañu woon kon contexte bi baax na imaam bu yëg responsabilité nga fàttali nit ñi waaw fàttali nit ñi fàttali nit ñi nag mooy li ñu boole ñun ñëpp tey muy Sénégal xam ngeen ni Sénégal mu ngi jëm ci ci virage bu jafe virage boo xam ni gëm naa ni bu ñu ko bu ñu ko rombee mën naa ubbi ay bunt yu bari ci sunu avenir waaye nag mu nekk virage boo xam ne bu ñu ko ratee mën naa lëndëmal lu bari ci sunu avenir waaw te arab day wax ni al fursatu lan yatakarrara maanaam occasion bariwul lu muy répété wu moo tax am na occasion yoo xam boo ko amee danga koy exploité mbokk yi réew mi ñuy dund tey képp ku nekk ci réew mi te nga am gis-gis xam nga ni réew mi yàlla rek moo ñu suturaal ci yërmandeem waaye réew mi maanaam lépp luy repère maanaam li réew li dal réew yëpp pour ñu dugg ci guuta maanaam pour ñu dugg ci guuta ba réew dootu fa des dal nañu dalatiñu waaye ci kartanu yàlla ak namm-nammam moo tax ba léegi réew mi duggagul ci guuta waaw loolu moo tax ba léegi duggagul réew mi duggagul ci guuta tey nag virage bi may wax mooy ñu jëm ci ay élection yoo xam ni jàpp naa ni avenir réew mi daf cee aju avenir réew mi dafa aju ci élection yi ñu jëm ñun ñëpp ku am nopp dégg nga ku ñuy wax Mahmoud Saleh nga xam ni mooy directeur kabinewu wu politique bu président Macky Sall ni maanaam troisième candidature Macky Sall dafa dépendre ci élection yi ñu jëm loolu Mahmoud Saleh moo ko wax rajo yi réseaux sociaux reprendre ko te ku wax Mahmoud Saleh wax wax ki gën a jege Macky Sall kon bu leen kenn gëmloo ni Macky Sall amul yéene pour am troisième candidature parce que junj doy na borom xel. arab day wax ne al isharatu takfi wolof di wax ni wax ju yegg dof moo ko moom nit moom bu ñu ko junjee rek war naa xam liñ koy junj liñ ñuy junj mooy bu ñu négligé wala ñun ñu nelaw ba élection yi ñu négligé ko taxawuñ ci niñ ci war a taxawee xool bu baax ban orientation lañ ciy jël virage boobu bu ñu ko ratee rek dinañ continuer continuer subir ce doon dund ci depuis 2012 ta mbokk yi encore une fois bu ñu naxante coono yi réew mi di dund yàlla teguñu ko kenn teguñu ko coono yi ñàkk leader yu yu bëgg réew mi ay leader yu jiital intérêt réew mi ko parce que ñun yàlla wàccoo na ñun buñ naxante yàlla jox nañu jaww ju baax Sénégal neige buy rey nit amu fi maanaam sedd buy rey nit amu fi naaj wuy rey nit amu fi kon li ñëpp di wut am nañ ko am nañ jaww ju baax yàlla may ñu espace bu yaatu yàlla jox ñu géej yàlla jox ñu tey zircon jox ñu pétrole ñu am or bu bari am li gën a jafe mooy cohésion sociale amuñu problème mu ethnie amuñu problème mu religion kon yàlla lépp lu muy jox ab peuple rek jox nañu ko ñu am fi ay référence fii ci réew mi waaye Sénégal li ñu ñàkk depuis soixante ba tey mooy ay njiit yu bëgg réew mi ay njiit yoo xam ne dañoo jël intére réew mi jiital ko ci seen intérêt bopp waaw tey nag kenn mënul wax ni xamoo li xew kenn mënul wax ni xamoo li xew tey li xew ñëpp xam nañ ko tey képp kuy ab sénégalais te xam réew mi xamoon démbi réew mi ci ay valeur xamoon démbi réew mi ci ngor xamoon démbi réew mi ci jom tey boo nekkee ab sénégalais am nga gàcc Sénégal bu ñu demee ba jël débat wu ngóor jigéen ci réew mi ay nit bëgg koo imposé seen peuple parce que dafa am ay loxo yu nekk ci suuf di leen ko imposé te loxo boobu du benn loxo bu dul Occident damay wax ni tey. loi bi nga xam ne jàll na assemblée nationale ñu ci war a jàll mooy day wane ni ba tey moomaguñ suñu bopp day wane ni ba tey amaguñu indépendance parce que indépendance mooy da ngay moom sa bopp wéy ak sa xel dem ak say xalaat te loi bi wane na ni réew mi benn minorité ñoom ñoo koy diriger ñu leen di dicter ay loi ñu koy imposer peuple bi parce que bu ñu naxante réew mi ku fi gën a ku fi gën a ku fi ëpp daraja sëriñ mun taxaa yeewoowul ci réew mi te kàddoom dañ koo xotti signature am dañ ko xotti loolu mooy dëgg sëriñ Babacar Sy Mansour signature xotti nañ ko Cheikh Mahi Niass xotti nañ ko eglise bi seen signature xotti nañ ko te ñi ko xotti nag ñun ñi nga xam dañu ni ñooñu ñooy suñuy kilifa tey lenn rek lañ leen mën a wan ni d'accorduñu amuñu amuñu amuñu amuñu doole juñ leen dóoree mënuñoo jot ci ñoom pour wax ak ñoom tey lenn rek lañ mën a def pour wane ni d'accorduñu ci xotti bi ngeen xotti signature kilifa diine yi ak église bi mooy ñu sanctionné Macky Sall ak ñi mu àndal te loolu sëriñ Habib si bu Cheikh El Hadj Abdou Aziz Dabakh wax na ko te loolu képp ku gëm moral gëm éthique te ni diine ji nga fi nekkal loolu nga war a wax parce que nak buñu ñu naxante ñun suñu wax day leer liñu gëm moy loi bi li tax mënuñu ko woote loxo yi nekk ci kaw loxo bi ci jitu moy loxo président de la république parce que mom mo yor majorité lu mbeug ñu woote ko lu mbeugul duñ ko woote kon lool dañ ci wax lu leer ba lañuy sori moy képp ko xamni yow li la nakari ci loi bi am nga occasion tay pour wandi Macky Sall d'accorduma

bàyyi ba jaan ji dem ñu topp ci dañ koy wax fi ñu ko war a waxee sénégalais yi am ngeen occasion tey pour wan Macky Sall ni ko d'accorduñu ñu ci mbirum góor jigéen sénégalais yi tey am ngeen occasion pour wan Macky Sall ni ko suñu opposant yi ngay traqué di leen tëj di leen tëj te amoo benn argument boo teg sunu loxo ñu ci waaw Sénégal yi am ngeen occasion tey pour wan Benno Bokk Yaakaar ni ko gor ñi ñi nga xam dañ leen a bëgg yàq dañoo bëgg a yàq seen image yàq seen der te réew mi rek tax leen a jóg d'accorduñu ci loolu parce que élection loolu la élection li la naqari ci urne bi nga ko war a wane waaw kon occasion bi bu mu ñu rëcc am nañ occasion boo xam ne bu ñu rëccee dinañ continuer di ñu not dinañ continuer ku wax ñu tuumaal la teg la tuuma joo xam ni fa yow a àgg du man yëggu fa waaw parce que ci résumé bii lañ gis ñu jàpp fi ab imam di kilifa diine tuumaal ko terroriste tëj ko ñaari at ci kaso bi xëy ni deful dara bàyyi ko mu ñibbi loolu du luy ay feela kon bu ñu naxante tey lenn rek lañ mën a def jàmm jàmmi réew mi tey stabilité réew mi man li ma gëm mooy Macky sàll joxaat ñu sunu réew ci jàmm ñu seet ku ñu ku ñu doy ñu dénk ko parce que yi ñu fi wax yépp guddal jël la réew mi kenn du fi coup d'état parce que kenn d'accordu ci réew mi kenn du fi utiliser violence parce que ñu ñi di ko gëmuñu ko li ñu gëm mooy dem ci urni yi sanctionner Macky Sall te tey jii am nañ occasion pour wane ko troisième candidature Macky Sall dafa dépendre rek ci élection yi buñ leen bu leen leen kenn nax képp ku gëm ni ku gëm ni Macky Sall wërta am can troisième candidature élection yii di ñëw na nga def sa choix te choix bi tamit buñ ci def buñ ci def erreur parce que liste yi ngeen fiy dégg yëpp man li ma ci gëm bu dul yeewi askan wi ñako tek ñong Macky Sall rero wuñu ta lolu man nañ ko argumenter parce que bu PDS gi ñi wax ñoo Macky Sall rero wuñu kon bu len def erreur am ño xamni sen candidat fi ci ndakaaru sérieux liñ ci jublu moy neutraliser électoral bi nga xamni ño nek ci opposition bi pour ñu bañ ko jox askan mbokk yi yeewi askan wi du du ay Ousmane Sonko wala ay Barthélemy Diaz parce que ñooñu suñuy nawle rek lañ ñun duñ di xalamal nit li ñu gëm ci ñoom bañ jël engagement man bopp ku mel ni man sama bopp laa xam mooy yaakaar rek lañ am ci ñoom yaakaar gañu ñu amoon ca Macky Sall ba muy Abdoulaye Wade te yaakaar jooju lañ am ci Ousmane Sonko ak yeewi askan parce que loolu la ñu jullit da ngay rafet njort lii la nit ki wan loolu nga mën a àtte tey li ñu li sàll Macky wan mooy bu askan wi soxlaa mu xañ askan wi jox tubaab yi moo tax ñu mën koo àtte ci lii waaye li ñu yeewi askan wi wan mooy bu bu askan wi soxlaa ñu taxaw si seen wet ba koroog ñuy gis leneen kon bu leen def erreur il faut yéen jeunesse bi ngeen taxaw gëm ni nak réew mi bu caaxaan jeexee deug des seen avenir mo nek en jeu tay ñun ñi di wax ñëpp lu réew mi metti metti dinañ am dépense alhamdulillah leader yi ngeen fi gis lu réew mi metti metti di nga am lo sor mais tay yeen ndaw ñi seen avenir mo nek en jeu réew mi li fi nek buñ leen ko dello dootu leen jël gaal yi réew mi li fi nek buñ leen ko dello fi ngeen di bëgg tok di fi jang parce que lu mën a nekk la waaw am na fi réew yu ko réussir Paul Kagame nga ne ci guerre civile la jóge tey réew ma dem na yoonam kon li dal Sénégal tey muy feebar mooy amuñu njiit yu bëgg réew mi il faut ñu seet njiit moo xam ni réew mi ci boppam daf koy gënal boppam waaw occasion nag am nañ ko waaw occasion bi ñu am bu ñu ko ratee ñu raté virage bi ah mën naa metti ci ñun de parce que ñii di wax ñëpp bis dina ñëw dootuñu am dootuñu am jotu wax kon yéen ndaw ñi na ngeen sécuriser seen vote maa ngi dégg ñuy wax naan ay hold up électoral man loolu duma ci soy li ma gëm daal man te gëm ko mooy bu Sénégalais yi génnee voté massivement sécuriser vote bi mu jaral leen lu nekk bari na lu nit bëgg du ko ñëmé waaw te bu fi kenn wax naan nitu nitu diiné yi dañoo wara neutre man gawma lool neutre amul nit fi nga far dang koy wax mu ne dang man tay fi ma far ñëpp xam nañ ko tay fi ma far moy dama gëm ni benn problème la Sénégal am tay muy Macky Sall man loolu laa gëm te mën naa ko layal parce que dafa dem ba réew mi ci boppam maanaam nekkatul ci ay loxoom man nañ ne bu doon volant oto la dañuy wax ni volant bi rëcc na ko waaw tey lii dëgg mooy li ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon man lam yahtamma bi umuuril muminina fa laysa minna mu ne mbiru jullit ñi liy dox ci pénc mi képp ku mu yitteelul bokkoo ci lislaam kon ku toog naan man politique bi sama yoon nekku ci loolu mooy déggoo diine sëriñ Abdou Lahat Mbàkke yàlla nañ ko yàlla fayal moo daan wax ni politique aw yat la rek boo ko jëlul dóore ko ñu jël ko dóor la ko réew mi lépp politique li ngay dund politique la ah sa sa doom yi nga am école yi ñuy jànge politiciens yi ñoo koy tabax hôpital yi ñoo koy tabax kon boo amee ku parewul pour defal la loolu boo ci noppee yow lu dal réew mi am nga ci responsabilité loolu laa gëm kon jeunesse bi nangeen taxaw taxaw temm gëm ni lii ñu dal yàlla teguñu ko yàlla teguñu ko de yàlla wàccoo na ak ñun liste yi nga xam ne dañ koo créer mu nekk ay liste yoo xam ne nguur gi ñoo ko créer ci suuf xàmme leen leen liñ ci jublu wax naa leen ko te loolu expert yëpp xam ñi xam wàllu politique yëpp wax nañ ko mooy tey sa carte koo ko jox ku dul yeewi askan wi bàyyil xel ni bàyyil xel ni jox nga ko Macky Sall parce que bu ñu naxante élection bi raw gàddu la te élection bi dafa am un jeu ci aveniru réew mi parce que nii wii nii non loolu moo fi nekk ba tey te li ma gëm dafa am loo xam ni luñ mayul woon Ablaye Wade waruñu ko may Macky Sall parce que Macky Sall mu ñu digoon mooy rupture lan la ñu digoon bonne gouvernance mais baat yooyu tey kenn ñimeetu ko prononcé ci réew mi kenn ñimeetu a wax ci réew mi di tudd baatu rupture wala bon gouvernance parce que nekkatu fi de te bu leen kenn nax yonent bi sallallahu alayhi moo wax lu moo wax wax bu wér foofu lay daanelee nee na société boo gis ñaari pouvoir yi ñoo koy defar temporel bi ak spirituel bi mooy al al umaraau wal ulamaau muy ñooñu bu ñu jagee rek société bi jag tey kenn ku ne xam na ni sunu pouvoir temporel bii am na problème te loolu peuple bi rek moo ko mën a régler tey la Thomas Sankara waxoon ni ce que les élites ne font pas pour le peuple le peuple le fera pour lui-même mbokk yi tey peuple bi moo war a jóg taxaw wan Macky Sall ni ko kontaanuñ ci yow xaalis bi ñu leen di jox foofu lay daaneele xaalisu réew mi la kenn moomu ko seeni impolo ku leen jox xaalis lekk leen mais urne bi yéen a fay nekk ku bëgg gëm ni projet góor jigéen dafa war agenda góor jigéen dafa war a jeex ci réew mi jarul xuloo jarul xeex sanctionnel bépp liste bu Macky Sall am ak Benno Bokk Yaakaar ak ñi ñi ko jege parce que am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir opposition bi Macky Sall la ñuy liggéeyal waaw loolu mooy dëgg parce que ñi yoroon loi yi fi ñu waroon a jaar jaar nañ fa mais wan nañ ñu ni ñoom liggéeyalu ñu askan wi am na ñeneen ñu ñuy liggéeyal pour wan leen ni nag ñun askan wi lañ àndal askan woo tey moo war a jóg sanctionné régime bi parce que askan wi amul doole ju mu xeexee askan wi kartam rek la am waaye bu leen nelaw bu ngeen ko joxee keneen ku dul yeewi askan wi sànni ngeen seen carte parce que boo gisee ñoom yeewi askan wi moo leen tere nelaw tiir yi ñu am yëpp réew mi dafa mel mel noom Ousmane Sonko fi nekk ñaata opposition ñoo ñaata opposant ñoo nekk ci réew mi waaye ñiy tiire ñëpp ci kenn la tiire parce que xam nañ ni kenn kooku mooy wax li leen fii jële kenn kooku mooy dox dégg dëgg na fi jóg te maslaawu ci négocier wu ci ñun nag li ñu gëm réew mi du France moo fiy fal candidat wala wala Amérique réew mi sénégalais ñooy tànn ku leen neex loolu beneen débat la dinañ ci ñëw waaye mbokk yi l'heure est grave tey pour ñu bañ a rater occasion bi ñu am yéen jeunesse bi jël leen seeni kaas ak seeni baraada teg bu ngeen wootee ba noppi toog superviser seen vote lépp lu mu leen jaral ñoom pour ñu def hold up électoral yéen na leen jaral lu ko ëpp baaba kër si radiyallahu anhu moo daan wax ni ki nekkul ci dëgg de lépp lu mu ko jaral yow mi nekk ci dëgg na la jaral lu ko ëpp waaw ñu gëm ni Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes Al-Qur'an la inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mbokk yi li ñu dal nii coono bii ñu dal yàlla teguñu ko yàlla teguñu ko Macky Sall ak nguuram ñooñu ko teg loolu foo mu leer parce que jox nañ leen moyens yëpp jox nañ leen police jox leen gendarmerie jox leen caisse noire dajale impôt réew mi di leen jox ñu koy

waaye ki sonn ba nga xam ne amul lum lekk buñ ko joxee alal joo xam ne impôt ma ngi ci na ko lekk parce que charia may na la boo xiifee nga lekk médd ku xiif bëgg a dee bu demee ci àll bi day lekk médd te réew mi tey ñëpp xiif kon kuñ jox xaalis jëlal faj faj sa soxla ñi ko mënta jël bàyyee leen ko waaye képp kuñ jox xaalis jëlal nga faj sa soxla dugg ci urne yi sanctionné Macky Sall man loolu laa gëm waaw parce que ñun réew mi dañu gëm ni lépp lu ñu wax fii dañ koy waxaat ci kanamu yàlla waaw waaw waaw wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda waaw ku gëm ni politique fii la yem mooy xamoo lan mooy lislaam politik jaamu yàlla gënu ko rëy à condition nga sellal ko le sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane si waxoon ni politik bu dee baax na de kenn waru ci jiitub sëriñ bu dee bon na nag ñun ñëpp ko war a baax te politique jaamu yàlla la saltel nañ ko nag ba gor ñi ñu bëgg leen cee génn te gor ñi bu ngeen génnee ci politique bi boycotté maanaam xiif bi du fi mus a jóg coono yi du fi mus a jóg agenda góor jigéen gi du fi mus a jóg kon nañ taxaw temb def benn bloc occasion bi bañ ñu rëcc ñu taxaw ci wetu yeewi askan wi pour ñu mën a yeewi Sénégal parce que Sénégal duñu dund colonisation dund esclavage ñëw dund néocolonisation tey ñu ngi continuer di dund colonisation te peuple bi rek moo mën a libérer boppam yàlla du wàcc mukk di ñu libérer Alaaji Malick du ñëwaat di ñu libérer Serigne Touba du ñëwaat di ñu libeere ñun ñoo mën a libérer suñu bopp tey ni ñu mën a libérer suñu bopp mooy dugg ci urne yi wan ni mag Sall ni ko d'accord ñu sa doxale te dara du yëngu ci réew mi parce que sondage yi wane na ko tey ku xool fuul yi ànd ak Ousmane Sonko. di ànd ak yeewi askan wi boo bëggee nax sa bopp bu bëgg fee indi yeneeni résultat yu bokkut ak yooyu loolu yàgg waa réew mi yéen a koy lijjanti waaw mbokk yi seen mbokk la Imam Dramé li duuf ci nag wi na xajul ci cin li waaye ñun lii ñuy wax ci suñu xol lañ ko tibbee te réew mi rek moo tax ñu koy wax nag parce que waxuñu pour kenn kontaan wala pour kenn mer ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne ëllëg bu ñuy bindaat histoire réew mi dinañ ne ba réew mi tollee ci phase bii waxoon nañ loolu rek lañ ci bëgg ak fayu yàlla lu leneen in uridu illa al islah mastataatu wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh